yi ñu génne woon foofu lee ñu dugalaat leen ñoom ñu ne nag lu ji njaag mairie bi moom mooy njaag ba tax na faaw ñu euh, lijjanti lu ni mel ab exploitation benn carrière indi ab coow ca Sandiara nekk fële ci département bu mbuur ay euh, sàmmkatu ay bàyyeekoo ci village yu bëri li ñuy naqarlu boole bokk na euh, ci bërëb bi ñuy yóbbu seeni nag ak xar ñi ngir ñu xont foofu foofule ñu ne dañ koo jox chinois yi mairie biñ ciy tuumal moom nee na laalewul benn yoon ci projet carrière boobule la cour des comptes en lumière ab exposition off la ci biennale Dakar 2022 bi organe de contrôle bi ubbi ay buntam ay artistes mu di juróomi peintre yu xarañ fii ci réew mi ñu dem wane seen xam-xam jaarale ko ci exposition boobu boobule dinañ ci ànd ak Ibou Diouf ci kanam ci reportage loolu lépp tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. bañ leen ziaree ba noppi guddib euh, démb jàpp tey jilee nag ay Samba Boy ñoom ñoo dewoon demoon ci Pamecas ba ca Gassane nekk ca département bu Linguère bëgg koo songu waaye fii mujj wut antu ndax euh, gendarme yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca euh, poste secondaire bi dañ leen a woo ñu gaaw ñëw foofu foofule ah, ba tax na ñu ngi doon tiirante ay sox sax diggante Samba Boy yooyu le ak gendarme yi looloo yee askanu foofu yëpp bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw lañu fa njaay mu ne sax am na euh, ñu ci am ay euh, gaañu gaañu rax ci dolli am na yeneen njombe itam yu ñu def wala boog euh, dem sàcc ab woto ñoom du ñàkk yeneen jataay xibaar dinañ ko gën a yaatal. ñu dem fële ca Gossas euh, ñiy liggéey ca centre de santé ba dañoo mer bay futu am nañu benn point de presse ñu ne ngir fexe ba seen i mbokk fukk ak juróom-ñeenti ca ñoom ñu dugalaat leen ci bërëbu liggéeyukaay boobu leen ndax dañ leen faa jëlee ñu ne nag ñoom ñi bokk ci euh, syndicat unique des travailleurs de la santé de l'action sociale ne euh, daanaka ñoom seen collègue yooyu la am nañu fukki at ci wàllum expérience reportage Aminata Goudiaby ak Abdou Karim ñu bëri ci personnel bi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci centre de santé bu Gossas ñoom ñoo taxawoon ci buntu ba ngir rek wax seen naqar lu toll ci fukki nit ak juróom-ñeent ci seen ay collègues nag dañ leen a leen ak ñeneen ñi ki nga xam ne jël nga ko presque mu nekk fi pendant années di la liggéeyal chaque année ngay renouveler contrat chaque année ngay renouveler contrat nga xëy un bon jour rek nga bëgg a séparer ak moom ndax bokkul ak moom politique kooku vraiment du lu rafet ci ñun rafetlu wuñu ko. agent yooyu mu fi jë bëgg a jëlee c'est des agents yoo xam ne dañ leen a former capacité leen ba ñu xam seen liggéey. ñoom nag ñu nii def nañ ay jéego yu bëri ay weer a ngi nii ngir rek fexe nu situation bi delloo ni mu meloon waaye nag nee ñu pexe yooyu yëpp benn antu ci looloo waral nag ñoom ñu yëkkati seen kàddu jaarale ko ci ab jano ak taskatu xibaar yi. ay négociation depuis presque depuis euh, bi mu ñëwee le 23 janvier après les élections li ñëwee ni du renouveler seen contrat parce que moom dafa am ñeneen ñu nga xam ne moom la bëgg a indi moom la ñu indi sax déjà dafa na benn lisam indi ñu nii nii la bëgg a jël ñu ne ñu ne ko nag du demee noonu li ci nekkoon bu fekkoon ne amul njariñ ñun ñi ñoo koy wax ne ko amul njariñ ñu neen ko fi jëlee waaye comme am na njariñ nañ ñu ko fi bàyyil. le le le maire. on a bien discuté largement. mais ces derniers mots c'était que lui il ne considérait pas ses agents agents. c'est ce qu'il a dit. ab plan d'action nag ñoom ñu ni ñu ngi koy defar ngir teg yeneen i jéego ba fexe nu seen collègue yooyu dellu si waatee ca liggéey ba. fi ñu toll tey jii point de presse bi lañu ñuy def. mais mercredi àllarba incha allah. dañuy def benn sitting. sitting boo xam bi commencé de 9h à 14 booba boobaa ñëpp danañ fi danañ fi teew pour wane ni avertissement la. ki nga xam ne nag moom moo di maire place te ñu joxoñ ko baaraam jéem nañ ko woo waaye jotuñu ko téléphone am day sone noonu rek. tey jile mooy bés bi euh, jagleel de sang maanaam mayeekatu deret yi ba tax na euh, centre national de transfusion sanguine moom mi ngi woote euh, pour nit ñi ñu dem foofule maye seenub deret ndax euh, yenn saay dañuy am ay jafe-jafe ci ay poche de sang daf fay ñàkk te maye deret ñëpp xam nañ ni lu am solo la ndax day tax ñuy sauver ay bakken ñu dem fale ca département bu Mbour wax ci ab coowal suuf bu am ca Sandiara bëri na ay sàmmkat yu bàyyeekoo ci ay village yu bëri lu ci mel ni Sousane Samaan ak Ñux la ñuy naqarlu mooy euh, bërëb bi ñuy yóbbu euh, seen euh, mala yooyu le ngir ñuy dem di leen di xontu dañoo jël terrain ba jox ko ay chinois ngir ñu fay exploiter benn carrière foofu maire bu Sandiara lañ ciy joxoñ baaram tuuma moom bañ ko laajee dafa ne laalewul dara ci projet boobu boobulee Abdourahmane Diallo ak moom duggee ñoo ñu teewal foofu ca département bu Mbour. ñeenti village yu nekkee ci commune Sandiara nee ñu duñu bay kenn daal di foqati seeni suuf. Suusaan mi ngi fi. samaan mi ngi fi ñaañaar mi ngi fi njuq carox mi ngi fi li ñu naqari nag mooy dañoo nekk ak àll bii fekk ko ci suñu maam yi ñu xam ne fi jamono di mujj ñu toog ba doxal ko wutal ko kayit ñu dil la biral ñu vingt cinq hectares ñu toog ba fan yee ñu ñëw ni ñu dañ koo samp ay borne loolu nag naqari ñu lool bi ñu laajee ñu ne dañ fee bëgg def carrière ñu xam ne carrière bi suñ ko fi defee dañu ñàkk suñu àll te ñun amuñu lenn lu suñu àll bi. sàmmkat yu nekkee ci département bu Mbour. ñuy ñaax kilifa yi ñu xoolaat dogal bi nga xam ne bëgg nañ ko jël. muy béy muy mbaam muy fas muy nag muy seetlu fii la ñuy escale ñoom ñu ngi wax diggante sàmm ak béykat ñu ngi wax ruur ruur ruur waaw lii suñu ko ne dagget léegi eh, jur yi fu ñu leen di def dañ leen aj ci kaw wala nag nguur gi ak mairie bi lañ daal di joxoñ baaramu tuuma waaye équipe municipale bu Sandiara di dalal xel yi balaa kenn du ko joxe balaa dara di fa xaw ñun mairie dañ koy délibéré te ñun duñu délibéré ci li nga xamante ne nii ah ñëwuñ toog waxtaane ko ba ñoom ñu wóor ñu ne pays ki éleveurs yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom d'accord na d'accord nañ ci su loolu amul euh, na ñëpp seen xel dal xam ne loolu mairie dugg ci tey dugg ci ëllëg. ak fu coow li di mujje ñi nga xam ni ñoom ñooy sàmmkat yu nekkee ci ñeenti village yi nekk ci commune Sandiara bi fas yéene ñu benn yoon joxe suuf suuf si nga xamante ne seen jur gi ci lay dund. ci maire yi euh, ñaaree li ñuy faral di seetlu mooy adjoint yi amuñu euh, benn pouvoir bu bëri lu dul leen maire yi di jox muy euh, benn loo xam ne benn mbootaay bu ëmb ay adjoint au maire ñu ngi koy naqarlu fële ca département bu Koungheul ñu jàkkaarloog taskatu xabaar yi ne état bi ci boppam rawatina njiitu réew mi moo war a lijjanti loolu jox leen ay attribution maanaam dooleel leen ngir ñu mën a def seen liggéey ñu bañ a toog noonu rek di xaar maire yi ñu naan leen jaar leen nii wala jaar leen lom euh, l'homme ci déglu moom mooy premier adjoint au maire bu sali euh, Escale euh, ci micro Oumar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ñun action maire yi de dañu pare pour waxtaan ak état mu jàppale ñu ci indemnité yi waxuñu ne bëriwut de mais dafa tuuti ci liggéey bi nga xam ne moo ñu xaar sur le terrain ndax tey maire yu bëri ñu ngi ci biir communes yi waaye duñ fa toog action maire yi ñoo fay toog sa chaque jour soo xëyee suba balaa ngoon ñetti nit ñeenti nit wala fukki nit day ñëw diir la soxla te nit nag mënuñu laa fal ba pare soxla di la xaar ku ñëw nga ne ko awma loolu moo tax ñun dem nañ wax nañ wax nañ leen ko te it nag ñu ngi leen ci jiital ci combat bi ndax ñun tey ñun liñ def ni ñoom ñoo ko waroon a def bon ñoom bu ñu ko deful ñun ñi di ko def ñoom dañu war a ñëw appui ñu jàppale ñu ba fépp foo xam ne war nañ fa mën a yegg ñu yegg fa ak fépp foo xam ne kaddu gi war na fa mën a yegg ñu yegg fa ak lépp loo xamante ni gis nañ ne ñoom suñ ñi si jàppale xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ah danañ danañ ci am ndam. ministère de la jeunesse euh, dekkilaat na boobu lee ñu naan gindima 200 365 la benn ligne téléphonique buy tax ba euh, ndaw ñi euh, ñoom ñuy mën di am ay xibaar ci lii di ay ëmb yu teel wala bokk xarafal yi ñuy def jigéen ñi wala yenn saay sax MST muy ay jàngoro yu ñuy am ci ay séq am na benn caravane de vulgarisation bu ñu def ngir siiwal ligne boobule ca Fatick Kaolack ak Kaffrine maam Koura Koura Dame juuf lañ ci déglu moom mooy coordonnateur coordonnatrice programme promotion des jeunes ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey xamante ne ni bu ñëpp ba ñu ko utiliser ci ab diir ko càmbar nañu ko gis nañu njariñ bi nga xamante ne ni am na ko et ndaw ñi nga xamante ne ñoom la ligne bi destiné wu apprécier nañ bu baax liiñ boobu ndax dina leen may ñu am ay information ci seen ay wergu gu yaram ci sutura ndax booy liggéey ci yenn thématique yi lu jëm ci ay nan ngay moytoo ëmb yu teel nan ngay def ba mucc ci mariage d'enfant ci xeetu métital yu ñuy métital nan nga koy mën a teel a ràññee yooyu waxtaane ci seen kër wala dem sax ci bërëb fajkat yu ko waxtaane donc suñu mënee tënk am ligne boo xamante ne nii xale yi bu composé deux cent trois cent soixante cinq mën na am information bu mu bëgg am ligne la boo xamante ne am na dix thématiques dugal nañ ci ba dugal ci nutrition xale bi yan aliment la war di lay war di utiliser bu tolloo ci gis mbaax bu tolloo ci beneen période pour que rek mu mën a information yooyu moo nekk ci ligne boobu xale yi di ko utiliser buñ ñu ba jëmmi jamono ligne bi xaw a taxaw suñu partenaire bu bu baax ci activités yu bëri mais jàppale ñu tamit ci ñu reprendre ligne boobu. ñu dem ba Louga foofu seetlu gi mooy. ndaw ñi ak ñàkkum xëy yi euh, ku ci nekk dafay xool euh, yan pexe lay am ngir fexe ba am lu muy suturloo lu ci mel ni ay dawal ay jakarta wala wëtiir wala lu ni mel waaye dañoo nemmeeku ni jamono ji metti na metti boo xamante ni euh, lañ daan suturloo sax as ci seen liggéey boobu dem nañu ba mënatuñ koo am la ñuy gën a naqarlu itam mooy ay industrie dafa ñàkk ci bërëb boobu Thierno Fall moom moo ñu teewal foofu ci région bu Louga ñàkkum xëy bokk na ci jafe-jafe yi gën a mag ñeel ndaw ñi fii ci diwaanu Louga muy nag lu nga xamee ni si askan wi daanaka ñëpp mën nañu ko seede. jeunes yi amuñu liggéey fii la ñuy taxawaalu agression lii moo koy waral. jeunes yi di taxawaalu nii. sunu njaboot gi sonn nañu sunu nii seen i ndey sonn nañu talu ñoo lekk talu ñoo naan dund bi seer na trop trop trop. et aussi tamit liggéey normal amul li liñ leen di digg li ñuy wax lu doon benn xam tamit loolu day nekk problème. ndaw ñooñu nag tey jii lu ne ñu ngi koy jéem ngir am ci lu ñuy yëngu. moo tax ba ñu bëri ci ñoom daal di soobu ci secteuru transport bi. amul dara luñ liggéey jakarta moo fi am ak witir lu ko amul benn entreprise bu jeunes yi mën a liggéey. boo dawul lii dawal jakarta te lii dafa seer man maa ngi ko jënd un million trois cent. te mënu ba léegi mënoo ko génne njëgam dëkk bi dëgër dëgër boo xam ne mooy lool. à part ay lii transport ak commerce loolu da fi am ñun Louga moom problème suñ suñ lu ko gën a yokk mooy. amuñu ay usines yoo xam te ay usines yoo nañ cee mën a dem liggéey xamam. muy nag liggéey bu nga xamee ni ca njàlbeen ñi ngi ci doon gis seen bopp waaye nag jamono yi bëri ay jafe-jafe yu nga xamee ni si moom lañ ci jànkoonteel. ñu ngi koy dunduree muy metti fépp kay. essence bi yokk nañ ko da ngay xëy boo wàcc boo solo essence li ngay sol essence fa ngay yem munoo am leneen lu ci tegu. met na trop ndax tey jii nii boo daan boo daan ay 4000 essence sa tey jii boo xëyee da nga consommé lu mat 5000 wala 6000. bu dëgër na ba pare yaa mu ngeen xam des fois gars yi dañuy ñëw fi opération jàppuñu ba boo xëyee suba ñu nga fay 3000 doo ko jël sa moto te ñun ay père de famille ay suñu de famille donc gouvernement bi jàppaluñ benn yoon fii amul leneen lu ñu def fii Louga moom bàyyi boo tukkiwul moom lii la nga mën a yor wala jagarta ñoom nag li ñuy sàkku ci nguur gi rawatina kilifa yi dëkk bi mooy ñu fexe ba Louga am ay usines yu nga xamee ni si dinañ ci mën a daan seen doole. bu ñu dimbaliwoon si ay usines yu nga xam te mën a liggéeyee amaana ñun du kenn du si jéegaan damay Dakar di na bu dee jàmm moom fii la amee. mais lenn rek moo ci war a mën a am maanaam nguur gi jël ci ay matukaay yu mat sëkk. créer ay emploi liggéey ñun loolu lañ bëgg. Louga bokk na ci dëkk yi nga xamee ni si taux de chômage bi bari na fi lool doole loolu nag bokk na ci li ko sabab mooy dëkk bi amul benn usine bu nga xamee ni rek ndaw ñi mën nañ cee xëy ngir daan seen doole. ca boori bombey moom am na ay village yu bëri ay soxna lañ fa tànn lu mot ci ay fanweer ci ñoom ñu tàggat leen ci naka la ñuy defaree lu ci mel ni ay détergent saabu ak lu ni mel ba ñu jàpp ni mën na dem sax ba njëg bi wàññeeku ci marché bi foofu ndax dinañ dem defaral ko seen bopp mën koo jaay askan wi loolu mi ngi tukkee ci benn financement bu bàyyeekoo ci ministère de l'emploi et de la formation euh, professionnelle reportage Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ñu bëri ci personnel bi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci centre de santé bu Gossas ñoom ñoo taxawoon ci buntu ba ngir rek wax naqar lu toll ci fukki nit ak juróom-ñeent ci seen ay collègues dañ leen a dàq leen ak ñeneen ñi ko def nag buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo def toogaanu ñaxtu bi mooy waa mairie bi moo tax nag ñu takkoon ay brassard rouge ngir wane li leen metti monsieur le maire dafa ñëw ñëw bëgg a ef li mu fekkoon lu mel ne 19 nga bëgg leen a jël directement remplacer leen ak d'autres nga xam ne jël nga ko presque mu nekk fi pendant 10 ans 10 années chaque année ngay renouveler contrat chaque année ngay renouveler contrat nga xëy un bon jour rek nga bëgg a séparer ak moom ndax boobu. ñu jégg njuumte bo du ñàkk ba. Diouf dinañ ko am ci yeneen jataayu xibaar euh, démb euh, mooy ubbiteeg euh, fukk ak juróom-ñaareelu édition foire commerciale des états yi bokk ci yi ñu nar ko amal ba fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk ñeent fukki dëkk ak benn dinañ ca bokk at wi lii leen gën a yitteel mooy weccante yi diggante état yi rawatina ci jamono ji leen mbas mi sonal leen loolu ginnaaw ndaje boobule dina am yeneen activité lu ci mel ni ay forum ay waxtaan ci lii ñuy duppee xalal ñu déglu ci loolu directeur général bu CICES di Saliou Keita ci micro may Maymouna Ndiaye ak Modou Diop. lii nag dafay nekk occasion pour agence bi nga xam ne moo yore promotion investissement yi ñëw waxtaan ak ay investisseurs pour fexe xëcc investisseurs yi ñu ñëw Sénégal loolu aussi dëkk yi nga xam ne ni ñëw nañ fi ñoom ñëpp indi nañ seen agence. de promotion des investissements pour ñu ñëw réew mu nekk nga indaale li nga xam ne sa gouvernement am na ko comme kii donc di wax ne tey boo xoolee exposition yi wax dëgg yàlla produit agro alimentaire yi ñoo fi bari parce que li ñu bëgg a wane foofu mooy Afrique mën na euh, dundee li nga xam ne moom lay béyee waaye tamit ñu béy li nga xam ne moom lañu ñu dundee tey thème bi mooy fexe ba ñun dëkk Afrique yi ñu joxante loxo bu promouvoir les échanges commerciaux dem ba nga xam ne ni tey lu ñuy wax la promotion de l'expansion économique sunu réew bu ne nga ngi leen ko doon wax ci ndoxteel bi biennale de carte 2022 mi ngi wéy ba léegi cour des comptes bu ndakaaru ubbil buntam ay artiste yu nekk fii euh, muy ab exposition bu ñu duppee la cour des comptes en lumière ci of yi la bokk loolu nekk ab ndoxteel ci ab lëkkaloo bu am doole wala bokk bu ñu gën a dëgëral ci diggante euh, cour des comptes ak artiste plasticiens yooyu toll nañu ci juróom ñu xàmmee leen bu baax a baax fii ci Sénégal ñu jël seen xam-xam seen xarañte yóbbu ko foofu ca Cour des comptes Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye tabax bi ngeen di gis mooy màkkaanu Cour de comptes fii nag liggéeyu saytu bu am solo lañ fi amal waaye nag bu nga xamante ne juge financé yi dalale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu aar loolu rek day joxe li ñu duppee Cour de comptes en lumière. Cour des comptes nag ñi ci ëpp ak mën a ci yem affaire bu graaw la institution état la boo xamee ne. Euh, daal euh, dañuy liggéey loo xam ne ni euh, mooy jëmale réew mi kanam su ñu ñëwee ci institution bu mel noonu ci palaas bu mel nii ñuy séentu leneen wante nga dugg loo fi fekk nga fekk fi aar d'abord da lay bett Cour des comptes en lumière fësal liggéeyu juróomi artiste peintre ñu indi fi ay image yoo xamante ne dina am lu mu soppi ci gis-gis bi ñu doon am suñu nit ñi suñu fi dugg dañu yemale seeni cër xaw a réglé tuuti doo gis ñuy àddu ci kaw wala di sànni ay xottu gerte yooyu yooyu moom amu fi moom <laughs> soo duggee nag ci saal bi nga gis ne salle bi aar ak tax a jóg soo fi duggee gis a xoolal xoolal ñale di xool xoolal ñu ngi dox ndànk di temp ndànk suñu taxawee ci benn tableau xool ko ba mu yàgg jàllaat ci beneen coowuñu defuñu dara ñu ne nag lii lu am solo la ndax dina yombal taseeg ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu àtte wala wàllu yoon ak ñeneen ñoo xamante ne seen liggéey dafa wekku ci wàllu aar ngir ñu wax ci leneen maanaam loi du 1 pour cent. te ñoom xaaruñu tey pour def ko nag wax dëgg ndaxte soo duggee fi ngay jëkk a jot euh, am na fresque boo xam ne mosaïque la ñu liggéey ci loo xam ne képp ku dugg daa ko gis. dina tax nag ñi nga xamee ni jotuñu ko woon def wala ñu am yaakaar ne mën nañu ko jëlale ba beneen ñu xam ne lu war la ñu def ko. exposition bi nag liñ ci jublu rek mooy fexe ba fësal beneen xar kanamu Cour des comptes fexe tamit ba artistes yi mën a wone seeni liggéey ci kër liggéeykaay bi loolu rek di firndeel fii du léegi rek lañ fi ñëw ngir ñu àtte la walla nga dox fi soxla waaye boo fi ñëwee diñ fi fekk liggéeyu artist bu mucc ayib. jërëjëf Ibou Diouf ci wàllum tàggat yaram Youssoufa Dabo bàyyeekoo na ci poste entraîneur bu Tëngéej football club moom coach bi bàyyeekoon na foofa ginnaaw ba mu fa nekkee wala boog sax euh, bi mu euh, club bi mu euh, amaloon benn contrat bu naroon dem ba 2023 ginnaaw ñetti saison ak Tëngéej FC Youssoufa Dabo jeexal kon noonu kon moom mi démissionné boo mooy mu dem fële ci jaraaf bu ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci journal record mi ko bind tey jilee ñu soobu ci ponk bu mujj mu yëg yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ñaaw làmmiñ dafa mel ne day fay léegi ci réew mi le mandat nañu neexutawee dina ay saagakat yu ñëpp xam la gis ñu leen di nabb nabbee ak di leen nengal ne liirub ñetti ndey bi ci mujj yéenekaay bi nee nañu mooy waa ji ñu naan Kalifone masuta jóg ci di wax wax ju ñaaw ak a dagg ay saaga yu ñaaw di ko teg ci kaw Macky ak waa keroog ñu gis leen ca Paris la France ñuy lëngoo ak longante te lu ko jiitu yéenekaay bi nee nañu gis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 formé na marine nationale bi. Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen ci àndandoo bi ak ñun rédaction bi euh, di leen dig daje à partir de 19h incha allah ñu bàyyi leen ci kanam tuuti ak Pape Cheikh Diallo mu wéyal midi plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.